dalleen ak jàmm baadu ak gaaf day bëgg a topp njaboot gi fi amet Amar bàyyi ginnaaw bi yoon tegee loxo kenn ci doomam yi Dame Amar ci mbirum dorog ginnaaw ba mu organisé woon ab soirée foofee ca di ba ku ñuy wax Iba Thiam daat ci ñàkk bakkanam Dame Amar sax jamono ji mu ngi ci ab détention préventive waaye nag mu mel ni jàpp gën ko jàpp servirul leçon rakkam ji di Baïdy Amar ndax kat moom it yoon daf ko teg loxo moom di Amar nag li tax yoon teg ko loxo moo di dafa forcé barrage policière ak ub otom xamante ni màndi na bay lang di dawal mbir moomee nag mu ngi xew guddik mardi 21 jàpp mercredi 22 avril ci jamono joo nga xamante ni couvre-feu bi nekk na en vigueur bu ñu sukkandikoo ci sunuy source nag rakku daam amat ji bi muy def jëf ji mu ngi àndoon ak benn xale bu jigéen bu nekkoon ci wetam li nag di waral ni folie de grandeur moo ko jàppoon ba mu màndi ba xamatut fu mu nekk looloo waral ba mu daal di forcer barrage policière bu nga xamante ni tegoon nañ ko fa li ko feeñal nag ginnaaw bi mu mbëkkee barrage bi daal di daw dañoo relever plaque d'immatriculation bi nga xamante ni nekkoon na si oto bi ci noonee nag la ko waa commissariat bu jëppal daat koy teg loxo li firndeel di nag dafa màndi woon moo di way takk der yi dañoo fekk ab biteelu sàngara ci biir otom boo ginnaaw arrestation bi nag ca lañ ko daal di defeere ca parquet ba mercredi gi nu génn waaye nag li ci doy waar mooy ay waxtu rek ginnaaw biñ ko defeere ca lañ ko daal di bàyyiwaat mu daal di ñibbi këram daal di sax classé dossier am sans suite mbir mi nag di firndeel ni fii ci réewum Sénégal milliardaires yi daanaka kenn du leen laal moo tax ba lu leen neex ñuy def ndax kat lu toll ni màndi di dawal waxantuma la nga teg ca mbëkk bareelu policier te dara du la ci fekk loolee ku ko sañ a def sa wéeruwaay moo dëgër rek mbir mi nag nekk na loo xamante ni jaaxal na trop sénégalais lambda bi